sujet d'actualité yi mbokk yi euh, du côté de la régie Tafa par rapport ak mbiru ki nga xam ne que moo di euh, Moustapha euh, Diakhaté kàddu yi nga xam ne tam yëkki noo ko daal koy jëmale si li nga xam ne que moo di sénégalais yi ni képp ku voteel Ousmane Sonko ak waa Pastef da torox loolu nag moo waral li nga xam ne que moo di daal ko si woolu da ngaa andu torox Alku ak torox bokul ok donc da nga alku cadre yoy le ki nga xamné que modi Moustapha dal yeki procureur dal kay wolu ci kanam yon ak wal yon entre temps euh, garde à vue déferment ak li nga xamné que modi mandat de dépôt dina fasiyene ko dal di wol mëna atté si kanam mu yon ak waluk yonal mais tout d'abord dañuy dal di ñew ci nga xamné que modi les minutes justement euh, de son procès alors Abdou fu mu toll nii euh, lan lañ mën ce qui se passe social li nga xam ne que moo tribunal la euh, est-ce que ki nga xam ne que moo di Moustapha ba tey mi ngi si fu mu nekkoon. non moom la waxoon moom bougé wu ci centimètre d'après information yi ma ci am bougé wul benn centimètre. Mhm. d'ailleurs que avocat bi di El Hadj Diouf sax nee nañ abordé na fa ay questions yoo xam ne sénégalais yëpp ñu ngi ko doon laaj fan yëpp ci réseau yi. muy lan ak lan. c'est-à-dire que demander juge bi ndax déggu leen li docteur Diallo wax. ndax déggu leen li Cheikh Thioro wax ne ku en contre Sonko sa ndey liggéeyul et cetera et cetera lim na ci yu baree baree bari yooyu nag ay question yu jara laaj la waaw te nañ ci gën a insister di ko laaj procureur boobu toog di assister audience nañ ko jox boobu question jël vidéo jar na woon jëloon vidéo yi sax def ko ci benn kele dem yóbbul ko ko dem yóbbul ko procureur de la république jox ko ko ne lii nag boo ko gisul ñu wan la ko tey booba nag bu leen leeree ne seetaan na ko gis na ko defu ci dara ah boobaa nag ku ne jël say matukaay. mais docteur Diallo lu mu waxoon. docteur Diallo da benn parti unique moo fi am fii ku fi lappi lappi dañuy nangam taan ndeyam damay a saaga ni ñuy dégg waaye dafa saaga woon ndey loolu la waxoon. mais loolu xam na euh, peut-être euh, saagawul. Ah, askan wi. mais fii Moustapha Diakhaté est-ce que jàppoon itam loolu. insulte la jëm si askan wi kenn képp ku voté Sonko. te à 54 et quelques pour cent daal di koy da nga torox wala da nga alko alko waaw jëlal be ben parti fi am bi ko lap lapé ñu nangam daan sa ndey saaga deli la de da nga ko fàtte waa léegi Cheikh thiorom mi ne ku contre Ousmane Sonko sa ndey liggéeyul nak ñi voté ñi contre ëpp parce que bo né contre rek dugal nga ci Sénégal yépp manam ka voté wul sax yaang ci biir amna ku voté wul ta contre manam contre ak ñak and ak mom bokul peut-être abdou contre abdou contre ousmane sonko mais dafa ñak and ak mom exemple contre sax moy man ñak and yow ni nga jëm man ni la jëm non lolou ak contre bokuñu lolou man nga ko jappé sax contre c'est-à-dire man yow say doxal est-ce que nekul fu ngeen bëgg jëmale wax ji contre c'est-à-dire xama battre contre moy lan da ngay jëm ni ma jëm ni mais est-ce que cheikh choro bëggul won wax que ni Euh, non non bëgg tuutal benn lay Ousmane Sonko ñu jug pour yàq ko ñu jug pour bëgg takkal deram si yenn yoo xam ni itam defu ko non kon nangul ko Moustapha Diakhaté rek kon a wax ne Ousmane Sonko waa Pastef liñ def lépp kenn warul jël seen carte di leen votel moom rek foofu rek la waxee loo accordé ki accordé rek mais mooy garaaf li Moustapha Diakhaté wax tuddul bàyyi kenn tuddul ndeyi kenn kii nag daa cité ay ndeyi jàmbur nag tontu naa sama wàll am naa sama benn maam keroog mu may woo naan ma noo sa di sëñ nii ma ne ko ah daal damay wax wax naa ko ba pare daa bëgg daa bëgg sëñ tubaa nag nee na lu sant Mbàkke moom da koy wormaal nangam waaye nag daa am ñoo xam dañ faa bàyyi sant wa di def mm. jëf yeneen i jëf fi la ñuy fekk nag loolu moom duñ ko nangu fi mu réew moom taxaw di saaga ndey jàmbur yi loolu kenn du ko fi nangu man moom waa Pastef li ma leen wax rek

Euh, histoire bu humanité bu ben jigéen juróotu lu mel ki nga xam nekk mu Ousmane Sonko et tant d'autres et est-ce que jàppoon tam pour un premier ministre cadre yooyu dafay dégénérer fay dem ba laal li nga xam nekk mu son intégrité tay jii mu daal yëkkati li nga xam nekk mu cadre est-ce que tam euh en la bu viscéral jëmale si ki nga xam nekk mu le leader de Pastef. wa xam nga lolu mom engagement la engagement la digganteem mak Pastef digganteem Ousmane Sonko Moustapha Diakhaté mi lu wax Ousmane Sonko Ousmane Sonko wax na baye jambour lu ko raw fuuf. nee naa la budé wax ju ñaaw rek ñu war tej Ousmane lañu wara ñëk tej ba Sampul Dias mënu ko jur euh, Ahmed Khalifa ñass mënu ko jur ku ci nekk wax na la wax bo xamné wéñu ci dal da ngay dé amna ko xamné da tuddu bu tuddu ay awra na ma yàlla te jéggal ma muy wax ju bon da duñu wax lool man Sonko lu ko nit wax da ko ko fay. mais loolu peut-être euh, euh, euh opposition hmm. euh, lorsqu'il incarnait justement le chef un chef de parti tey Ousmane Sonko PM la premier ministre la. amna lo waa ñii am na mënuñu ko yëkkati ko tek ci kawam mom kay bu goré lu ko waay wax day muñ ndax nénal ñaar ñi mu tuddu ku ci nekk mëna ka kaa jiw te saaga na mais Sonko waxul c'est le procureur qui s'est autosaisi si cas yooyu yëpp autosaisirul de nee nañ cybersécurité ñoo euh kaw ba jaxata exemple c'est le procureur qui s'est autosaisi Kaaw ba jaxate. non Kaaw ba jaxate aussi euh, ñoom imam étant d'autres étant d'autres tey cybersécurité tey. maanaam Ousmane Sonko moy réagir mais c'est contrôle euh, mais euh, ñi ñi ñi dëkk yoon ak wàllu yoonal yeneen vidéo yi ñooy docteur Diallo yeeg yooyu ñoom gisuñu ko woon parce que seen machine yi du mënul jël yooyu loolu laay laaj seen machine yi maanaam seen ordinateur yi nga xam ne ci dañ toog ak télé yi ñoom image yooyu xanaa du génn antivirus bi am doole moo tax virus waa passif maanaam seen wax ji bonaay gi bon virus bi mu àndal xam naa moo tax machine yi mënu koo jël loolu la xam naa comprendre naa waa cybersécurité loolu kese la xam naa ne xam nga wax yu Pastef nag seen i wax daa a ñaaw te a bon léegi nag xam nga virus bi muy àndal xam naa machine yi ñoo ko dul mën a détecté comprendre naa leen loolu kese la ñun nag suñuy wax moom comme garaawul noonu machine yi da koy gaaw xëcc. Mm. jot nañ leen wutal machine yu am doole nag tamit parce que lii man mënatuma jàpp ne tayeef la parce que man un homme de tenue mënul xool ñaari wax yu mel nii mu agir ci bi bàyyi bee non loolu du rôle homme de loolu kay leneen a ngi ci ginnaaw moom. mënul ne Azoura Fall mii docteur Diallo ñoom ñii waa Pastef lii ñuy wax un homme de tenue ñu tegal la ko tegal la ñi ci opposition bi li ñuy wax nga bàyyi lee jàpp ci lii non non loolu mënuma koo gëm. da nga jàpp ni ñàkk yamale dafa am. si am na kay loolu amul lu may jàpp de loolu c' dama koy maintenir dañ yamale wuñ nit ñi. yamale wuñu il faut nga xam ni ñii ay institution la ñu. waaye bu ñu nee bu ñu nee institution article 80 mi ngi fii. waaw PM Ousmane Sonko.

da am maa ngi nuyu waa Feeling Dakar bañ falee jomaay dama faa def benn émission boo xam ne tey jii lañ ko waroon a tegaat sax ñoom lañ ko waroon tegaat contexte bi heure bii la woon dañoo fal jomaay une semaine lañ ci teg astafurlaa matut une semaine bi ñu programmé résultat yi définitif yi ba pare. Mm, mm. ba jomaay prêter serment. Mm. damaa dem fële Feeling Dakar ñoom laa njëkkoon na defal émission ma ne leen Bassirou Diomaye fay maa ngi koy ñaanal doonte bugguma woon mu falu waaye li ma koy ñaanal bokk na ci na woo waa parce que li koy yàqal ci ñoom lay jóge boobu xaw ma woon sax seen jëf ju bon jii dinañ nekk di ko def. ma ne xaar xaar moo pare. Ah. ma ne ko na woo waa bi. Hmm. mu toog ne leen ah man kat dañ maa fal ndax Macky Sall dafi doon def injustice ñu jëlee ko fi teg ma fi man nag mënumaa ñëw di làq doom di duma doom man damaa xamoon lii. su ma ko fi defee ni ñu def Macky Sall lañ may def léegi nag yéen ñi nga xam ne yéen a ànd ak man ba egsi au pouvoir maa ngi leen di sant di leen mm. gërëm. Mm. waaye bu leen tooñ kenn bu leen saaga kenn bàyyi leen lépp lu leen nit def yoon dina ko faj ne leen nag fan yii di ñëw damaa war a réformer justice bi boobaa day indépendant man dootuma ci am accès keneen ak keneen dootu ci am dogal te bu boobaa bu ngeen tooñee nit it man duma ci man dara lii laa waxoon ne Basirou bu ko na ko doxal ak ñoom. mais ñetti fan lañ ci teg asura saaga ko ndey ma ah lama ma doon bañ de ngay xeeñ loolu laa doon bañ fa ko waxee won vidéo ba nga ko lu néew lañ ci teg asura faal saaga yaayam ma ben benn ken kenn réglé wu ko bobu ñu bayyi mu sedd ñuy doxal ñuy doxal ñu japp ba jaxate ñu na ah, ñu japp 60 ñu ne ah azura gëna a de mm. presna la saga mm. ñay ngay continuer di dem ñu gis ay chroniqueurs nit ñi di leen porter plainte mujjul fenn ay chroniqueuses ñu leen di porter plainte mujjul fenn ñu bare bare ñu leen mujj mujj fenn ma xamne nak lama doon bañ egsi na. ci laa jëlee samay matukaay man. alors man bobu la jël bu ngeen sétlo ba ñu commencé arrêté nit ñi ba tay mayuma mayuma pas chef jamm hmm. parce que ñen ñi sax ni dem ba naan non Abdou est ce que du dafa bëgg ñu japp ko dedet dama leena bëgg wan yoon bi nan la. alors que man limay wax mom mbindef xelul khalatul di ma ci teg loxo bàyyi waa Pastef. alors. alerte euh, alors légui nak jomaay meuna meuna mën na tourner gaaw balaa moo trop tard parce que arrestation yi ñuy gis ni yi ñuy gis ni ñàkk yamale la. non euh justice bi dafa am euh li nga xamné que modi pouvoiram la justice euh elle est indépendante. Euh, donc exécutif bi mënu see dugal loxoom parce que lolu mo yago nek sen ay xeex exécutif bi mu ngi ci loxom mu ngi ci procureur. affaire bi du ci magistrat ya toog di àtte gisee ñee toog ne di àtte Cheikh Thiam ak ñoom Moustapha Diakhaté ñooñu du problème. Hmm. ñooñu boo leen indilee droit la ñuy wax. Hmm. mais bala nga faa am nga mooy problème bi. alors c'est clair problème bi xam nga fan la diggante directeur police procureur de la république ministre de la justice ministre de l'intérieur ak Ousmane Sonko seen patron ndax moo nee na moo leen yilif nee na moom li mu bëgg bu leen woowee jàpp leen dañoo war a jàpp c'est honteux. Sénégal yaakaaruñu ñoo dinañ agsi ci ndaare gi maanaam Macky Sall mi ne woon dossier dama cee teg sama conco dañ ne yii li erreur la mais kii nee na man maa jàppalu hmm. su ma nee même Abdou bu nee futti bi ma añee neexul sax su ma nee jàpp leen da ngeen ko war a jàpp. alors kii même Abdou bu rombee sama buntu kër di walis tànqal sama doom ji sax da ngeen ko war a jàpp même heure treize heures bu rombee sama buntu kër damay seet téléphone am sonné déranger ma sax su ma nee jàpp leen da war a jàpp. loolu mooy loolu mooy yéen samay jaam ngeen man ngeen war a xëyal di ko gontal affaire buur kajoor a ngoog si loolu exactement ah, loolu man loolu du ko nangu de Abdou si loolu exactement li ñu daal desani euh, ñu daal di ñëw si li nga xam nekk moo di mbiru Cheikh Thiam euh, et tant d'autres et tant de la régie Tafa ñu gis nii euh,